présidence bi Colobane ak Sandaga du sens réunion victoire du présidence rek après présidence du président la bi nga mooy demeure historique sur la carte de carte plateau capital général construit en 1902 oui sama defal on a yàgg lay lay mais la résidence officielle du gouverneur général la vraiment dans la le Barcelone c'est en 1964 ba du jëf 42 wala 2012 Macky Sall depuis 2012 ñam fi ñaar fi ñu xaar ba am kii woote ba ko jëf président daal gokkal woon fa law de salaamaaleykum allo salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah man la oustaz Mor Thiam bu RFM Oustaz Mor Thiam bu RFM. waaw moom la moom la. Oustaz Mor ñoo ngi lay ziar Oustaz Mor lu waral sa woote bi ci biir pale bi ci waxtu bi mu toll nii. am naa yaakaar ne ci pale bi laay wootee nii. waaw waaw waaw yaa ngi wootee ci biir pale. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. président laa soxla woon bëggoon na waxtaan ak ci wàllu koor sahru ramadan mubarak. waa président nag nii nii dafa xaw a jàpp. ah dafa jàpp. waaw dafa jàpp nag boo amee loo koy wax bu soobee yàlla boo ma ko waxee léegi bu ñëwee jot ci. kon alhamdulilah laay wax alhamdulilah. Uh-huh. ne ko ñëw nañ ci weeru wooru shahru ramadan mubarak. Uh-huh. te kenn ku ne xam ne ni suhru ramadan dafa bari ay ngëneel te ngëneel yooyu ngëneel yooyu nekk na loo xamante ni dafa baax ci doomu aadama ndax ala suñu borom tabaraka wa ngi gërëm nit ci li nga xamante ni daf ci ne wal xaddi karam naa bani aadama maanaam sàkk jàmm pare teral ko kon nit boo buggee noppalu ci teraanga gi la yàlla di jox. jël ci dimbali ci ñi nga xamante ni ñoom nga bokkal diine ji. ñoom nga bokkal weeru koor gi. dimbali leen génn ci sa alal jox leen ci di natt azaka. dafa baax ci weeru koor. loolu weer na weer na weer na. moo ne woon président na ci gën a waxtaan ak nit ñi bu jaree sax mu def discours. ñi nga xamante ni ñoo jël seen alal denc ko. ñu mën di ko génn di ci jàppale doomu aadama yi ci weeru koor. waaye am na ci ñoo xamante ne nii waxuma na bu dul weeru koor sax boo tee woote téléphone duñ jël te ay borom alal yi. est-ce que jaaduwul yéen loolu maanaam saa su ne ngeen waxtaan ci yéen ñiy def conférence yi. waaw ñun def dañ koy kut ba saa su nekk ci jàkka yeeg ci jumaa yi. di ko waxtaan ci sunu émission diine yi ñuy amal ci rajo yi. waaw waaw dee leen ci waxtaan ndax xam nga nit ñi moom léeg-léeg am ñoo xam ne suñu borom dénk na leen waaye. damay yaakaar ni léeg-léeg dañ dul dégg li waxtaankat yi di wax. ñoo la ko gën a dégg xam nga borom alal dafa doon loo xam ne daa doy waar. te nit te nit du bayal ndax benn milliard bu ko nit yoree mën na cee dund ba ay sëtam dund ca. am na ñoo xamante ni denc nañ ci ay fukk. Uh-huh. bu ñu fukk yooyu bis bu na ñu ngi jéem a seet la ko yokk moo tax seen dimbali du gaaw dañu uh-huh. bàyyi seen xel te xam ni yàlla rek a fi dëkk te yàllay joxe yàlla bu la joxee ñaar jox la ñett xamal ne ñetteel ba moo moo ko uh-huh. sa moromu jullit moo ko moom te dañu war di dimbalante jàppalante ci weeru koor wi loolu moo gën a rafet ci weeru koor ndax ay ngëneel la ak ay tuyaaba loolu weer na loolu weer na ana leneen looy wax président bu ñëwee ko ko léegi nag bu ci amee kenn kuy joxe ci boppam man boo ko jox man ma séddale ko ñi nga xamante ni ñooy miskin yi ndax sunu borom dafa sàkk jaam ba pare ne ala taamil miskin Oustaz eh, pour ñu jox la ko yow nga séddale allo ah, waaw a ah, waaw Oustaz eh, Mor ah, votre correspondant ne peut être pour le moment veuillez appeler ultérieurement